euh, cette loi d'amnistie qu'on veut voter c'est une introduction à l'impunité mm -hmm. parce que impunité mooy nga def ba pare duñ la àttee sax xam nga bu ñu la àttee daan même boo tëddul même boo tëddee buñ la daanee dix ans nga tëdd six mois ñu amnistier ñu xam ne daanoon nañ la c'est vrai dinañ ko effacer sa casier judiciaire mhm. mais l'amnistie efface les les les les les infractions et les délits mais la matérialité de, de des faits continue d'exister c'est-à-dire nit ñi même boo ne euh, baal nañ fàtte nañ nit ñi du ñu fàtte donc il faut que responsabilité yi ñu situer ko loolu moom moom mooy permettre nit ñi ñu giifal c'est-à-dire ñu ne ah kii de rey na suma doom jugé nañ ko daan nañ ko vingt ans mais pour des raison d'unité nationale de paix sociale de réconciliation dañu war a baale ñu amnistier mais jog rek amnistier ay nit comme ça amnistier ay faits comme ça alors que kenn dans la majorité gis nañ ñoo xam ne ils sont pas d'accord du tout mais mais ouais. personne ne devrait être d'accord avec ces lois en tout cas ça cache quelque chose mm-hmm. parce que daf ko annoncé sous des formes très très kii très très fines ah en parlant de pardon de réconciliation mais loolu bi mu ko waxee rek uh-huh. la ñëpp xam ne ci loolu la jëm pourquoi qu'est-ce qu'il cache qu'est-ce que le président Macky ne veut pas que les gens sachent pendant deux entre deux mille vingt un et deux mille vingt quatre pour que ñuy précipiter. Ah, une dernière question.